السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب أرشدا gannaaw bu nu الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم من wa sallam ñu ngi rawatina senegal bi nga xamne ne amuñ lu mom di ñaanal sunu khalifa Cheikh Sidi Mokhtar khalifa am yalla na yagal ko fi lor te mu ànd wër ak mboolem ñeppatu Serigne Touba gi Cheikh sep ak mboolem kilifa turuku Sénégal gépp ak alamu islam yi ni ñu ko waxon sànq tay nak li tax ñu lu beral sunu kaddu dara lu moy ab jam di ab talibé mooy yalwaan ci mbokki taalibeem ak i mbokki jullitam kon ñu ñaanal sang su baax ku tedd ku màgg koo xam ne njëriñ la ci réew mi ndax ku ne xam ne bëgg na réewam muy Sénégal fonk na yoon bi nekk mu yoonu maam di Thierno Ibrahima Fati borom Daaru Muxti ñu dippee ko maamam boobu muy borom Daaru Muxti ñu gën koo xam ci maam Thierno Ousmane yàlla nag mooy ki ay dogalam di ko teg jaamam bu ko sopp ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla daan na ko teg ay nattu mu koy tegoo Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu yaakaar yi yàlla teg na ko ay nattu mu teew kon waa ju baax ju mën a doon rek ala kulli alin mënta ñàkk yàlla teg la ay nattu yooyu nag du dara lu misaal ay misaal yàlla di wane nii moo man moo sañ dogal yépp ci loxoom la nekk ñu nit sañe sañoo ñaan yàlla moomu mu ñaanal ñu jëmm ju baax jooju di maam Thierno borom Darou Mouhty di rek ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni du doomu Seydina Ousmane Mbacké Noreyni mu borom daaru ni ma ko xewoon sànq jamono ji nag yàlla da ko teg ab tawat ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla teggin teg ko teggin bu gën a woyof te lépp ànd ak tawfiq ak taysir ta'iman ñu ne won nak nañu génn ci waxu kay di yelwaan bokk talib yépp ak mbokk julit yépp ku ci nekk li ñu bëgg wax bu ko mëne mu def ko li wajillaa ngir jëm yalla nga xamne dara amul lu lu may jëmum ci mum yalla te mo ne won aduni asjib lakum mo ne won ñaanal ma may leen kon nag jaam suñ na ñaan borom bu ko jaaree ci jaarwaay bi borom may ko maa ngi ñaan yàlla képp ku ma dégg boo mënee def ci li mu istixfaar cent vingt quatre mille istixfaar cent vingt quatre mille astaxfirullah boo ko mënul nga jël ko diviser ko par sept juróom-ñaari fan yi dana la jox 17.714 714 bis bu mujj bi da nga am 17 716 boo ko boolee lépp dana la jox 124 000 17 714 bi boo ko mënul ci bis bi itam nga xaaj ko séddale ko ci waxtu julli juróomi boo ko ci waxtu julli juróomi da nga am 3542 waxtu gee bi da nga am 3546 boo noppee nga julli ci yonent sallallahu alayhi wa julli bi nag taamu naa ci ñu def ci salaatul fatiha ku mën salaatul fatiha mu jàng ko junni yoon boo ko mënul nga def sallallahu alayhi muhammadin dix mille fois dix mille fois wala nga séddale ko par cinq ci bis waaye bis bu set na nga ci am dix mille fois dégg nga boo noppee nga jàng yaa latif quatorze mille cinq cent quarante et un quatorze mille seize mille six cent seize mille six cent quarante et un seize mille six cent quarante un mu tombe am xew yi boo ko mënoon moom it nga séddale ko par juróom-ñaari ko par sept gannaaw ba nga defee loolu ba noppi nga teg ci sortu yaasin quarante un li am solo daal mooy lépp li may wax nii na nga fexe mu mat ci juróom-ñaari fan maanaam bés bi nga jël 41 yaasin nga diviser ko par juróom-ñaari fan nga xool looy am bu toolee nga jël la tool nga def ko ci bis bu mujj boo noppee rek nga jàng xasaayit boobu ñuy wax toppatul aba muy taxmis wala Taysirul Asir maa ngi ñaan yàlla képp ku ma dégg bu fekkee mënoo jàng xasaay tamit nga tëjee ko junni salaatul fatiha junni salaatul fatiha muy mil ñaan yàlla ñaanal borom daaru mooti di maam Cerno borom daaru yàlla yokk wër te may ko tawféex foofu mu nekk ba mu ñëwaat ci jàmm ci doole Cheikhul Xadim ci barke yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne torox yëpp ak islam yëpp ak yonent yëpp jëmmam moo taxoon yàlla wàcce leen ci kaw suuf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatu